sëñ Fallou jokku naa ca xalifatu manoo yeslu naa ca dollo bi ca biiru jokku naa jekk naa jekki naa dootu man di wareelu bareeru jàll nan war ca gaal ca mbuuro waaxu nan ba ca waax ba ca mbuuro irkaboo gaayi nan ñaani paasoo seexi fadilu gaal gaa ngi teeroo irkaboo gaayi nan ñaani paasoo seexi fadilu gaal gaa ngi teeroo soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca géej sëñ Fallu sëmbu nan sangu nan jàpp nanu sugaleef na ca duus ya fa mbuuru sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa ka suuru jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee fa mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaroo làng naa maa ngi way sama géeru. salaamaaleykum ñoo ngi leen di ziar yéen ñi ñuy suivre seen chaîne yi mu Ndindy Actu Rafah TV académie bi nan di la ziar yow sëñ Ahmadou Seck di ziar mbokki taalibe bi ak daara soppee Cheikh Mouhamadou Fadel yi comme ni nga ko waxee rek tey ñoo ngi woon ci septième édition journée sociale sëñ Fallou mu nekk euh, journée boo xamante si nii comme ni ñu ko ñëpp xamee rek muy journée dimbali néew doole yi Euh, comme ni ko sëñ Fall doon defee jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi euh, ñu ngi ko taxawal depuis 2016 tey nekkoon suñu septième édition euh, septième édition nag ñun ren fi ñu ko teg mooy septième édition set sëñ Fallu set tonu ceeb ak yeneen ak yoon yoo xam yoo xam ne ay set set la <laughs> lépp nag ngir fas yéene koo liggéey la Cheikh Mouhamadou Fadal comme ni ñu ko doon defee ci li ñu xamee rek muy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon le chiffre sept daal ren moom ngeen jël kon alors bu fekkee ne bu fekkoon ne dañ koy évaluer Euh, en terme de d' argent maanaam ci wàllu koppar euh, à peu près ñaata ngeen dépensé. waaw bu fekkee ne ci côté koppar bi li ñu dépensé c' est plus de 2 millions. waaw dépensé nañu lu plus de lépp 2 millions. dépensé ko ci bis bi lépp rek ngir bëgg bis bi jag. ànd koog mbokk taalibe yi ak soppe Cheikh Modou Fadel yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew. ak ñëpp ñi nga xam ne xëy na def lu baax itteel na leen ñu bëgg cee barkeelu bëgg cee jàpp ngir sëñ Fallou rek tax. waaw di wax de xam naa li ci li ci gën a ëpp solo daal mooy sëñ Fallou rek dafa neex a liggéeyal hmm. waaw coow li mu bari bari daal sëñ Fallou neex a liggéeyal rek kon lépp lu ñu ci am du njàmbaar du dara waaye liggéeyub Cheikh Mamadou Fadal moo hmm. demee noonu hmm. te dañoo wan ne rek ab liggéeyam amul tànk ginnaaw waaye tànk kanam rek la am te ren sax li ñu ci gën a yokk te mu gën ci neex mooy dañoo ñëw fi comme ça dañu chaque année fi la defee bis bi euh, ci saalu sëñ saal bi nga xam ne moo nekkoon saal moom la ñuy wax saalu Cheikh fauteuil ak yëpp ci turu soppe Cheikh Mouhamadou Fadal kon moo tax journée bi ren daal musuñ musuñoo am bu gën a neexee ni bis bi wax dëgg yàlla di ci gën ci gën a sant bu baax Cheikh Mouhamadou Fadal suñu yaakaar. kon nag gis nañu wax dëgg yàlla organisation bi dafa dafa dafa dafa rafet dafa jaar yoon macha allah amul benn débordement malgré nit ñi bari nañu euh, bu ñu leen doon lim ci di leen évaluer war nañu toll ci ay euh, plus d'une centaine. Euh, ñu gis ni organisation bi nag chaque fois dafay am ak dal gu ci am alors daayira bi naka lay organiser woo pour di amal xeetu bi yu mel nii muy am réussite. waaw daayira bi de daanaka mën naa ne sax ñun euh, amul taxul mu am yenn organisation yi nga xam ne comme yeneen yi nga xam ne dañ naan ñu ne fondation la wala lu mel noonu. Hmm. parce que am na benn texte bu ñu boo bu ñu doon wax yow nga ñu doon ñu ko waxal. Hmm. nekkuñu mbooloo mu bari. Hmm. waaye dañoo am bokk benn bëgg-bëgg. muy Cheikh Mouhamadou Fadal. bokk benn jubluwaay muy liggéeyal Cheikh Mouhamadou Fadal. bokk benn gëm-gëm muy gëm lépp lu ñu song ci Serigne Fall dinañ ko daal. kon loolu rek moo tax parfois bu ñuy kii ñun ñoo koy wax ñeneen ñi dañu nekk sécurité bi ñeneen ñi nekk ci lii mais bu ñu demee ba affaire yi sax danañu ëpp doole parce que liggéey bi moo demee noonu. waaw ndax liggéeyal sëñ Fall moom foo ne kaay ma liggéeyal sëñ Fall ñëpp dañ leen dañ lay wuy si waaye loolu yëpp ak cant la rek ndax képp ku ñu wuy si tamit jàpp naa ne am ànd nga ci xool bu sedd def nañ ci li ñu war a def def nañu li ñu li nga xam ne du ñu sax du ñu sax li ñu man waaye sëñ Fall defal nañu lim ñu lim ñu mënal tey waaw ndax moom ci defal ñu la dëkk waaye tey moom gën nañ koo sant gën koo santati gën koo santati kon nag mii doon junj sànq Malick Fall Euh, mu nekkoon soxna Ndeye Mbacke mi ngi doon junj sànq euh, li nga xam ne euh, mu di benn benn benn texte boo xam ne moom moo ko bind moom moo ko bind di ci décrire mbooloo mi nga xam moom la àndal cest di def définition bi comme quoi ñoom nekkuñu ay groupe yu bari maanaam dañu mbooloo yu bari yoo xam dañuy dajaloo rek pour di di lim seen bopp naan toll nañ ci nii toll nañ ci lii mais li ñuy représenté moom mooy euh, une nation maanaam ay groupe de personnes lañ yoo xam ni dañoo jàppe seen bopp euh, li nga xam moom ba di peuple benn peuple nag boo xam dañu dañuy dañuy dañuy vivre ci benn nation ñoom ñooy peuple bi mais sëñ Fallou mooy nation bi puisque sëñ Fallou moom moo waxoon ni euh, mooy Sénégal donc moom mooy nation bi te am na boroom xam-xam bu mag nee na le peuple c'est la partie senn de la nation voilà donc li gën a sell ci askan wi donc loolu mu représenté peuple bi kon nag ñi ngi taxaw ak Malick moom mi nga xam ni moo yore euh, wàllu communication ci euh, daayira bi euh, sëñ Malick kon ni ko soxna si waxee. lan mooy nekk maanaam mébét yi xam nañu lan mooy septième édition yéen a ngi accenté wu ci chiffre sept alors huitième édition bi lan ngeen ciy waajal ak naka ngeen koy waajalee dès na ngeen koy waajal j'imagine. huitième édition bi. lu ma la mën a wax mooy tey tey tey fi ñu taxaw nii bu nu ñibbee nii dañuy dugalaat suñuy barkeelu ngir waajal chaque jours si ngoon si si la ñuy waajal jëm si li nga xamante ne nii moom mooy huitième édition te lu tax ma ne la lii dañuy sant te ki ki ki tax ñu koy def mu di Serigne Fallou moom moo ko téyel boppam un ba sept du ay caaxaan te social dafa demander ay moyens mais ñii bala may dem dama leen di sant mooy ñi nga xamante ne moom mooy les membres ndax ñu lu ñu néew lañu matuñu sax vingt mun naa ko wax ñoom li nga fiy gis nii ñu def ko lu toll si ay set tonnes ñoom ñoo am Pastef def ko jaayante ko seen ay barkeelu yoo xamante ne ñoom ñoo ko jaayante def ko euh, sept septième édition ñu ne dañ si bëgg set ton sëñ Fallou defal ñu taw feex ba ñu am ko amaana am na yoo xam ne bu ñu si duggee dafa xaw a sensible maanaam dañuy bañ a yàq donc pour ñu éprouver li nga xamante moo nekk suñu xol ngir wax ko euh, xam le que ni ki ñuy liggéeyal muy Serigne Fallou taxawu nañu teyit wan nañu yoon maanaam am nañ si paste boo xamante ne dara duñu si mën a déstabiliser nin ko bëgg woon nag mun naa ne sax dafa kawe suñu njort dafa ëpp ndax dafa bari ay kéemaan yoo xamante ne ni xew na si mais lu ma la mën a xamal daal mooy señ Ahmed mooy ni wax dëgg yàlla buñ la doon wax suñu mbégte mënuñu la ko wax nii la ñu bëggee ndax xamuñu ko sax amaana bu nuy wax sax waxu dof la ñuy wax parce que mbég daf ñu jàpp parce que Serigne Fallou bëgg daf ñoo jàpp tellement. ban message de sensibilisation ngay lancé à l' endroit d' abord des membres yi nga xam ne ñoom ñoo constitué daayira bi ak ñeneen ñi nga xam ne xëy na ñëwaguñu te gis action yi bëgg cee bokk. bon li ma leen di lancé ñoom ñoom xam nañ ko euh, liggéey bi mooy que ni ñu gën a yokk suñu pas-pas gën a yokk suñu Pastef xam ne ki ñuy liggéeyal ñëpp dañ koo soxla xam nga nit ki suy suy jaayante man damaa bëgg Fallou ñu képp la ñu fekk la si keppaaru sëñ Fallou ngay liggéey sëñ Fallou yow raw nga. mais lala war nag mooy nga gën a am Pastef ndax soo nee taalibe sëñ Fallou la lu bëree bëri dañ ko war a gis yow sëñ Fallou ku baax la woon ñëpp bëgg ku safoon xorom loolu yàlla def na ko su ñun ñun ñëpp buñ toogee dañuy foo dañuy reer mais tamit dëggu gi ak jaamu yàlla gi ak yiw gi ak am xolu laabir xolu joxe te loolu yaakaar naa ñoom ñi fi taxaw ñëpp xol boobu la ñu yor donc li ma leen di ñaax rek mooy que ni nanu gën a jàpp gën a xam li ñu am li waykat boo waxoon rek ki ñu am kenn amu ko ki ñu am kenn amu ko te bëgg fàllu yëpp jant la lu ñuy coow coow ñuy gën a sori loolu nag sëñ fàllu ñu ko defal ndax moom moo mel noonu bëgg fàllu des gannaaw waaw kon ñoom dañ leen sant bu baax a baax. merci beaucoup Malick je rappelle que yaay yore lépp lu jëm ci wàllu communication ci euh, daayira bi soppee soppe Cheikh Mamadou Fadal Mbacké. voilà man maay yore communication yi li jëm côté digital ak euh, yeneen yëpp plateforme yëpp. donc euh, dinañ xool. Euh, daal nun koy gën a yaatale mais aussi euh, il faut que ma remercier la presse bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Touba parce que tamit c'est pas évident ñoom depuis ce matin ñoom tamit ñu nekk fii di ñu accompagner parce que tey bu ñu demee ba nit ñi xam suñu liggéey ñoom am nañ si part boo xamante dañ ko si joué donc mënuñu dem du leen remercier muy académie euh, di Rafa di Ndindi Actu lépp benn la parce que lépp keppaaru Serigne Fallou la donc nañ leen sant bu baax a baax di ñaan Serigne Fallou gën a barkee liggéey bu baax a baax jërëjëf Malick merci beaucoup kon Malick Fadal Fall la woon ñu sant bu baax di gërëm euh, tamit vraiment euh, ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ñëpp teewee ko tey depuis ce matin Baye Galas Mbacke nga xam ne moom mooy directeur général bu Ndindy Actu ak tamit ñi yëpp ñi nga xam ne rek ñëw nañ teew ko di ay kilifa wax dëgg Assane Diop mi xam ne itam moom kilifa la ci kër gi ah, waa Rafa TV ak tamit académie Minane ñu am mbégte bu baax di leen jox kon rendez-vous année prochaine incha allah at mii di ñëw.